Génération FM. Génération FM, the best radio. Génération FM. ligne de toutes les façons Martial dégg ko muy wax ci il a fait ceci il a fait cela je pense que moom xam on a vécu ensemble dans le Pastef euh, xam na ni Pastef di fonctionner xam rupture la ñu euh, nous ne sommes pas dans des trucs de griot et autres voilà bëgg xalamal nit juste de pour ces beaux yeux ak Mon man su ma gisee président Ousmane Sonko def li nga xamante peut être neexuma euh, même si je ne le tout euh, ma ko waxul ak yow dinaa ñun à deux dina ko ko wax mais du ma nekk fii xam nga di chanter ses louanges mosumaa jox dërëm mosumaa may cent francs li muy def ci parti moom laa ciy def ñun loolu lañ bëgg indi comme révolution ci li nga xamante ne moom mooy wàllu politique euh, sama sœur bi nee na ñun li ñu daj ci politique am na ñu daj lu ëpp loolu amul kenn ku daj li Pastef daj ci politique en quelques années même PA yi ci jamonoom PA yi parti africaine boobu de l'indépendance li Pastef di daj présentement daju ko est-ce que xam nga ñaata militant Pastef ñoo nekk ci kaso yi fu mu toll nii on a 700 militants nga xamante ne ñu ngi leen tëj kaso fu mu toll nii. mais nag Aliou. Euh, may ma ma ñëw jamono jii ñoo ngi affaire ah, may ma ma ñëw may ma ma ñëw deux 2021 et ba tey. 2021 ah. ba tey militants ak sympathisants Pastef yi plus de 50 lañ ci rey xam nga ñii suñ ma ñom dañu am kilifa wala ñom dañu déggo ñun kenn mësu mësuñoo dégg ñuy xéxoo suñu biir à chaque fois ñun ñu génn te dam leen di défier xam nga ñom en général soo waxee dañu naan la kenn mënul def lii une chose est sûre sûre mooy ne tey bu fekkente ne la jeunesse est sortie pour défendre la candidature du président Ousmane Sonko doo gis benn APRiste wala benn waa Benno Bokk Yaakaar muy traîner sama frère bi ba du génn Cheikh Diop doo ko gis soo leen invité sa ci plateau yi duñ ñëw mais su seddee dañuy génn nekk di wax lii du fi am lee du fi am mais c'est ce que Macky Sall a compris et il a été très intelligent parce que bi mu leen dajalee ba Thérèse naan ko Macky soo demee koo ñu fi bàyyi dafa xam ne su forcé troisième candidature su askan wi génnee di dal ci kawam ñii du leen gis moo tax mu xam li ko ciy fekk mu daal di renoncer à la candidature euh, nee na président Ousmane Sonko texte yi ñoo ko tere pour mu nekk candidat dama ko bëgg a laaj ban texte parce que aussi débat aussi sooy wax dafay baax ngay indi ay firnde ban texte fu mu toll nii non il est toujours éligible est-ce que am na benn texte bu tere président Ousmane Sonko mu ah, nekk candidat fu mu toll nii ah. léegi nag soo may wax également ne euh, voilà ñoom seen kii ku baax la je pense que ñoom seen parti bi mën nañ jàngal ñëpp ba mu des leen ñoom euh, baax ak yaru ak bëgg a jàmm je pense que euh, APR ak Benno mënuñ ko jàngal kenn nous sommes toogee ba léegi dañ leen laaj pour ñu utal ndaw yi xam nga xëy utal ndaw yi mooy dañ leen di jox ñu leen ba ñu am doole jox leen ay def leen ay ak Dakar ñi fi nekk dañuy recruter am recruteur bu mag bu fi nekk ak sniper ak ñi nekk fële ñuy recruter ñu gis pick-up ñuy génn ci seen siège di jubali ci ay manifestation di ay ndaw ba euh, pratiquement soo xoolee li ñu yóbbu liste bi ñu yóbbu CPI am na ñi dëkk Ziguinchor bokk ci liste bi donc je pense que ñooñu mënuñoo jàngal kenn dara. ñun Pastef tey doo mës a wax ne fekk nañ ay nit ñuy def réunion wala ñuy def li nga xamante ne mooy meeting ñu ñëw ñu tas ko mosuñoo dal seen kaw te kii leader am Doudou Ka ñëw nañu di réunion man ma bokk ci délégation bi ñu doon réunion ak waa UNACOIS ci seen chaise ba janoo ak këram mais keroog combien lañu ñu gaañ ci ay boy Pastef di attaquer di dóor di sànni xeer je pense que bu doon violence man keroog oto bi ma toogoon bi ma génnee fi ma génn foofu lañ dugal daanaka muul mu toj vitre yi daanu foofu donc ñii mënuñ ñoo jàngal dara ci wàllu baax wala ci wàllu bëgg sa réew ak yooyu léegi président Ousmane Sonko damay ne kii kan moo mën a kan moo mën a seppi président Ousmane Sonko waxuma ci Sénégal ci Afrique fii comme leader bi nga xamanteni il est charismatique mu am aura nga xamanteni ben 24 heures su duggé ci ben scène bu melni par exemple France 24 day am plus de 1 million de vues nga ni kooku mënuñ ko dënk Sénégal soko bëggul dënk Sénégal xanaa kon Sénégal dañ koy jël jaay ko. voilà Aliou tégal fofu sa baram de euh, Génération FM. Génération FM, the best radio. Génération FM.